pour le journal de 19h45 qui, une fois n'est pas coutume, n'aura pas lieu à 19h45. A tout de suite, Malik. Merci beaucoup, Thomas. Programme oblige, mais également le respect du contrat qui nous lie avec les promoteurs oblige. On est obligé de décaler le journal de quelques minutes, tout en espérant que le combat ne va pas tirer en longueur. Nous combat.

Malick Niang assurance 18 combats 5 défaites 13 victoires moo Nyabali, Dan daan Dan Maurice Dulor Dan Sayarax Dan Jules Baldé daan Mbaye Guèye Junior ñaari Dan daan Dan Gor daan Auguste Manga 3 ko daan ak Saloum Saloum ak Kairé 2 ak Garga ak Super Étoile combat ba vendredi le 13 juin 2014 au stade Viva Mariop, 4e édition drapeau Maïdion, président communauté rurale d'Angunjan, responsable politique AFP, Son Sokonsi, école de l'île Balagay, Motahaw Assurance, Kumbour, Monguet Carlo, Carlo, ñi la musique, mettez l'ambiance de la lutte, ñaari xale

Max dafa mel ni arbitre bi dafa sifflé balaa balaa muy dëpp waaw mu faax ko mu dëpp waaye ba mu koy faax fekk na arbitre sifflé waaw daa fekk arbitre sifflé nee na coup de sifflé moo leen boole uh-huh. moo leen di tàggale waaw dëgg la tax mu sifflé nag xëy na dañu ci diggante ñaari saaku yi loolu mooy affaire bi ñu xool mi ngi doon topp ko mi ngi doon topp ko soo ko siman ko topp soo ko siman ko topp sànni na daw daje fa mu daje dañoo daje mu dóor hypergit ci nga di di asra di lonku jaxabal mu jéggi di koy waaw waaw di koy waaw xam naa li mu yéeg saako yi la mais doy na waar parce que action baa ci biir dafa mel ni erreur arbitrage am na Alaaji Maalik d'accord ma tey parce que booba ñu ci géew bi waaw mais génn na de génn de génn na saako bi mais Max mais bi dañ ko entamé. waaw waaw mais ci biir saako yi mu jeexee ci diggante saako yi donte règlement bi nee na bu sa liñ xaw a ñaari saako yi la waaw oh. bu sa ñaari tànk xasee génn uh-huh. dugg ci diggante ñaari saaku yi dañuy atte foofu bëre amatu fa looloo tax arbitre bi atte kon d'accord nañu ba tey dëgg la Alaaji Malick arbitre sible waat na soo ko siim assurance soo ko siim assurance na ko Sokosim Assurance Sokosim Assurance ndeysaan assurance bépp na waaye demul Sokosim a ngi koy topp Sokosim day nat waa mi koy nat ndax daa bëgg a dóor dëgg la xam nga moom kurpañ bi diis na waaw daa mën a xeex waaye léegi def dafa yëkkati rek assurance jiyoloo ak moom waaw daw dimu ko ko wane ni ko mën naa bëre mën naa dëgg la te am naa doole so mën même action. même action. même position. fàq ko ah assurance fàqat ko. arbitre nee na ko bul àtte ñetti appui moo am foofu. fàq ko mu assurance daa bëggoon a àtte sortie délibérée sortie délibérée. arbitre sifflé Watna. arbitre sifflé Watna. na. Sococim assurance. Sococim école de Balla Gaye assurance Mbour borom guddi guddi Mbour demee nañu wet moom tamit guddi guddi Mbour ña ngay demee wet waaw guddi guddi Mbour couronne baa nga Mbour roi des arènes baa nga Mbour arbitre baa ngi wax ak arbitre ngi wax ak ko fompal ma fompal ma dara lu lëndëm arbitre siflé waat na Alaaji ngi soo ko sim na tek léegi soo ko sim ak na tekk ñu ngi leew too ñoom ñaar soo assurance soo ko soo ko sim ngi leew too ñoom ñaar demee nañu wet ñu ngi leew too ñoom ñaar soo ko sim a wet Sokosi ma ngi ko waaw mais mi ngi diree ku topp ko. assurance sànni na dox na ci koom. daw na jël ko daje nañu saa yu day daw jooloo ak moom. dëgg la nañu génn nañu saako yi. bu metti assurance saa yu Sokosim yëkkatee loxoom day waaf daw jël ko waaye saa yu ko jëlee Sokosim bëree ak moom. waaw coup irrégulier.

waaye saa wu kee jógee rek mu jàpp ko wax na dëgg bëre bee ko gën a arrangé. loolu préparé na ko. waaw bëre bee xam na ni sa costume dóorkat la la. moo tax saa yëkkatee loxo mu daw jiwaloo ak moom. bu jógee rek mu jàpp ko. bu mu jàpp. ni ko nañu bëree. da ngay demee wet. soo ko si tegale cette victoire. Uh-huh. assurance jël crise bi. nekk mbër bu nga xam ne ci drapeau chef de l'état def na ci lu doy waar. dëgg la mën na ko lool. moo tax xeex bi gënalu ko. dëgg la moo tax saa loxo bi jege mu wàcc jàpp. waaye ñu ngi lay ñoom ñaar Soko Sim assurance ñu ngi lay atoo demee nañu wet wet ñu ngi lay atoo ñu ñoom ñaar. Sokone si Sokone si ni muy nattee. waaw bu saanee rek waaye fu mu nattee assurance. waaw bu nattee rek def repli. soo bu doxee ci koom mu wàcc ndax bëggul kurpañ bi dal ko. waaw sànni na sànni na gauche daw na jël ko buuba jàpp na. buuba sànni na laaw assurance jàpp na. buuba assurance jàpp na. Sokone si rasu na ma ngay jéem a door. ma ngay jéem a ubbi. mi ngi door ci tàmp bi. ma nga jéem a door ma ngi koy jéem a plaqué waaye assurance bañ na. assurance bañ na. nga téyante ñoom ñaar. assurance Sococim assurance sëq na géej ba loxo boobu nga jënd woo wóorul. waaw dëgg la bu ñu téyante ñoom ñaar. Sococim a gën a jekk jàpp. ñu téyante ñoom ñaar. gis loxo baa lang. waaw loxo baa ngi ñoom ñaar assurance. rocci waat waaye tam jënd na. jënd loxo boobu nga génne wóorul. wóorul. ñu ngi téye bu dee tax nga koy def. dëgg mi ngi liggéey ci sa kaw. waaw téye na. assurance Sococim. ñu ngi téyante ma nga ndengeñ. waaw ca gaño ya. Uh-huh. Sococim loxo càmmoñam. téye na dara. waaw téyewul. moo ko moo tax jënd boobu ko. mën na ko indil problème mi ngi xeex assurance wéyale na ko génn nañu saako yi lu xew dara xewul arbitre sifflé woon na Malick dafa sifflé balaa ñuy daanu saa yu ñu defee action dañuy génn ci saako yi action yi soog a jeex te day fekk arbitre bi sifflé combat bu metti combat bi métti na. jël yi bari na waaye validé guñ ci benn. waaw ci benn. ñetti jël am na. waaye validé wuñ ci benn. père Balla Gaye ngay wax moom. ana sama père Chimane demal fekkeel ma loolu. métti na jël yi bëri waaye validé kuñ ci benn. action baa jël ko ña xeex nañu xeex nañu mu rasu fàq ko puus ko mu defeenu waaye fekk na bi sifflé lii yéeme na moom ñaari action yi daal match nul nañ ci parce que kenn ku ne daan nga sa morom ci diggante saako yi fekk arbitre bi sifflé avant wante action yi ci biir lañ ko entamé ah, moo tax daal doy na waar arbitrage bi doy na waar waaw da leen di fàttali coup moo leen boole moo leen tàggale Alaaji Malick arbitre sifflé waat na Soko Sim assurance day na waar ñu ngi ne teg mais wax nañu ak ñoom ñu ngi lew too ngay assurance jiital jiital tànku ndeyjoor Soko Sim jiital tànku ñaari poids lourd. ñaari poids lourd. yu nekk ci dynamique de victoire. dëgg la. ku ne bëgg a dem. ndeysaan ku ne daan na sa morom waaye nag day fekk arbitre sifflé ñu telloo si waat leen ñu ngi lay too ñoom ñaar demee nañu wet assurance a ngi poussé ku calculer combat bi la am na lecture bi parce que dana fexe ba loxoom du ko dal am na lecture bi waaw sur le plan tactique jingo mi ngi noonu mi ngi gérer combat mi ngi gérer combat am parce que yu sim loxo mu ak ko ko ci mbapat te bu ñu mbapatee ko ko mbapat mom, dafa mën a bëre la ngi ñaar nañu wet moo tax sim am lu ko père ba la wax la contrôler sa la ma say bala dem wax na dëgg ponkal xajul ci yeel. wax na dëgg loolu wóorul. loolu wóorul dégg nañu wet. ilaha illallah daw na jël ko. xeex nañu jël na ko. ndeysaan. ma ngay saa yëkkatee rek mu jàpp ko. daw na jël ko mu rasu fàq ko. ma ngay dóor. soo ko sim dóor lay jéem a def. mais ñaari loxoom yëpp téyewu. assurance day jéem a assuré prise am. assurance téye na. assurance téye na. ndeysaan. soo ko sima gi xàcci. ma ngay jéem a dóor. pour dóor waaye assurance du ko ko may. du ko ko may aj na ko à papi, fois day nëbb bopp bi. day nëbb bopp bi. nëbb ko kanam gi xañ ko ko. ndeysaan. téye bu dëgër. gisoo bi da koo téye ndengeñ ko Alaaji Maalik. jéem a mbapat ak moom. gisoo. dinañ la loxo ba soo na door na. assurance téye na ba mu dëgër. moytul maa topp door yi ba mu yàggale fu la arbitre baa naa leen bëre leen. ko sim xeex bi la waaye assurance mayu ko ko. Ah, daw na jël ko. daw na jël ko. mu ko sim téye na. ndeysaan. ma a door. ma ngay door du am impact. que am doole ndax. da euh, koy ñëw tafu ko. da koo tafu. da koo tafu. ndeysaan. cër yu gudd yor. Do am recul pour mën dor dóor dóor bu dal. dëgg la Alaaji Maalik téyewaat na ñu ngi téyante ñoom ñaar Sococim assurance combat bi metti na xeex nañu bëre nañu jël yi bëri na. Sococim assurance ndeysaan ñu ngi téyante ñoom ñaar Sococim assurance. Sococim assurance. Sococim assurance. ndeysaan. ñu ngi téyante ñoom ñaar. ku ne yaa ngi jàpp. ku ne ngi téye. ku ne yaa ngi ndengeñ. ndeysaan. ku ne yaa ngi liggéey. dëgg la ku ne ngi téye. diggante Sococim ak assurance arbitre wala mi. waa nee na leen bëre leen waa bëre leen la leen di wax. ah ñu ngi bëre de. waa ñu ngi bëre bëre su jàppante di dóor. ñi ngi jàppante ñi ngi liggéey ñi ngi ñi ngi réfléchir ñi ngi bëre waaw a door waaye sàmmal ma say tànk jël ma say tànk assurance daan la bu la yeggee foofu daan la la demati na mbuur mbuur de école de lutte Balla Gaye zéro assurance daan Balla Gaye daan Sococim Bombardier daan Balla Gaye la confirmation de Mbour Sokocim daa topp xeex bi sabul ay tànkam bonkal xajul ci di door sa ñaari loxo